Thank you aha doom yaay tey mom wax dëgg fa yalla nak sama rakk ji mo a wéetal na kër gi quoi. ah man de ci lima gis sama ak ko dal. ba neexul nak sik na torop nak waye bu feebaree kër gi day wéet. ko xamanteni xamante ne lu réer kër gi ke bëgg mako ji lu xew rek nga ni jom la dëkkandoo guddi dëkkandoo bëccëg tamit yenn yi ak yenn ak yalla tamit du ko bàyyee noonu da lay ray vite fait kay. xanaa ah, nag ñaaral la jàmm rek dëgg fa yàlla nag bëgguma nga dee waaye ñi ngay def aussi boo jógee ci sa feebar bii war nga koo wàññi xam ni man nag doomu jàmbur laa. man moom sama njëkk bu baax bii ah dara waru koo dal nag loolu dañ koy sonal di ko tooñ waaye sama njëkk nag amul benn problème dara waru dal yow. billaay ka jaa waxal ca kaw mama dara waru koo jot ragal ci boppam la def feebar nii tëdd rek ne nemm waxoo defoo dara waaw xam nga lan a def bàyyi seen wax bu bëri ji ngeen wax da ngeen wool kii médecin bi mu ñëw faj ko moom moo gën seen wax bu bëri ji voilà parti bi ngeen ça va ci doone lépp jàpp ça va allez euh, mu malade tëdd voilà ah dañ koy yàq xool mais xanaa kii amul kenn ku koy calmer pour muy dal. moom day liggéey journaliste wala communicateur traditionnel la si làmb ji la nekk. yee raw na foofu di dem kii li muy wax. Ah kon day taasu. ci li muy wax amul benn jëwet bu ko mën a wax. Pape Ndiaye coppe rek la jox ak Dame Sène kii dafa am problème mu wax fi mu toll nii. Hmm. xanaa léegi wax da koy économiser. Ah, day jeex léegi hmm. day hmm. mu jéem a calmer rek jéem a calmer waaye fi mu toll nii moom bu waxee ii day faatu yàlla waaw. waaw baq yàlla jëm de. Mbàkke Bawol dara jëm baq yeeg Geesa Mbàkke Bawol ah. xanaa mu jéem a calmé su mënee wax AB léegi si lañ mën a sukkandiku soo kaa yóbbu bolok puuxa fële fi ñu fajee waxati. puuxa waaw fi ñu fajee waxati. tur nga baal ma waaye A wala wax leneen léegi nag su matee nag su fekkee mën na wax AB ñu jéem ko yóbbu puuxa fi ñuy fajee waxati. Mm. opéré ko te kii pour ñu xam dëgg-dëgg sax li ko dal foog ñu daggate ko. waxukaay même problème waxukaay dafa sori si nit. dagate ko jeex ko. Uh-huh. waaw jéem koo calmer fay ko loolu am am affaire dañ koy defaat ñun amuñu ban problème boobu. médecin yi ndaanaan lan médecin Sénégal léegi aay nañ quoi. yooyu mm-hmm. di problème suñu. Mm-hmm. xam naa dinaa fa jaar jël ci garab yi sax. waaw noonu ngay def incha allah xam naa nag ay calmants lay doon mais ki fekk yomb ñu jaaxaan tamit ko moom malade bi. Mm-hmm. d'accord ok monsieur. ok merci beaucoup. waaw aloo mbay ça ci loo ne wuyu foo nekk nii voilà xam nga lu ma bëgg ah dama bëgg nga ñëw kër gi léegi defal benn affaire maman sama rakk bi voilà dafa feebar léegi nag dama bëgg na xool xam naa doo médecin doo dara mais ñëwal indaale say bagage ak ñàngal duufal def sa costume ak affaire yooyu xam nga voilà ñëwal rek ñàngal ci kër gi xam nga rek tere ko wax yow daal noo mën a def ba dootu wax rek defal ñu ngi nii tëdd ci ëtt bi ñu ngi tëdd ëtt bi dama ñu dugg ci néeg bi nii di la woo voilà xoolal ñëwal léegi ñu ngi ci ëtt bi toog xoolal boo ñëwee rek nuyool ma présenté la xoolal nga ñàngal yow fexeel rek ba dootu wax ci àdduna dégg nga boy bi dafa mën a dugg lu ne lay lijjanti ok maa lay xaar ñëwal léegi dégg nga ok fii. maman dégg nga li ñu wax bu baax wax rek mooy faatu nga fa yàlla Mhm. sa kanam gu dijj ak sa lex yu diis. sa ñaawaay bu doy. ba nga wax waxal. tontu non non ah, bu leen xam ne bu leen xam ne mënta wax rek ngeen di ko def lu leen neex nag bàyyi leen jàmbur de. boo wax di faatu ci yàlla. ay ay jom dëkkandoo yow man waxuma loolu sax man robbam bi demee ni uh, walukaayu machine yooyu. <laughs> ay waay eh, képp kuy wax nag waxal depuis léegi. man kay maa ngi mel ni noppi éléphant. balaa muy <laughs> waaye jugal sax jugal ma yóbbu la ci biir nekk. bako bako bako bako ñaawaay sa la ci bëri. waaw nag yaa fi wax nii ba njëndil la facture wax nag. ay waay ay. sama tikkoo man damaa xamul sax facture bi fan laa koy fay opération bi nan laay def ma fay ko. daggati de lañ koy defati. ay daggati daggati lañ koy dagg. nee na Ali B Ali ah, B. ah fa yàlla fa yàlla ñu yóbbu ko bàyyi leen jàmbur nag dafa feebar doom yaay bàyyi jàmbur waaye dafa feebar. médecin bi AB rek la waxul seede waxul dee it AB rek la wax nga wax. naa leen xiir moom xam naa sama jikko docteur bi nag puissance. mooy lekk nag. ah ñu xam ah. Eh, sama xaalis dama koo soxla mënatuma muñ ba muñ naa ba sonn sama xaalis laa soxla. Ah, mu ngi feebar tëdd ni sonn bu ñëw di ko laaj ay xaalis. dama ne la nga dimbali ma sama yoon nekkul ci feebaram xale bu ndaw di ñëw sama place fekk ma fa laaj ma la ma soxla jël ko ba pare ñëw fi toog ma di ko war mu naan mu di ma dawloo sama xaalis laa soxla fay ma ko ci nii wala ci naan. ah, ah kii kay amul xol. eh yaay booy gis nga kii tëdd dafa feebar bay bëgg a dee mu ngi diggante dund ak dee. dama ne la. ba mu xamee ne day waaj a dee dafa waroon a fay bor bi ba pare. sëñ bi na buy wax mooy dee yàlla. man xale bu ndaw du yore sama xaalis tëdd ci moo ñëw ba sama place ne ma sama bu góor day ngénte jabaram te amul dara lépp ma li ma la man def saa ko ci léegi nag lu mu sol la amul jël ci man valeur fukki junni ak juróom benn xanaa boobaak léegi doom ji war naa dox soxla am ndax ëpp na ñaari at yàlla daa dogal kii mooy magam ñun ay jabaram xajjaa mu ngi na le amuñu ëmb bu yàqu sax bay am doom ba doom ji di dox sax maman de tas nam réew maman fen naa fen fen ba fen fen international maman yow laa jógal jox ma sama xaalis sa kanam ne ràbbu saaw sama xaalis yi ma ko jox. si ñaaw waayam bu doy waaye jógal wuyu kii. jox ma sama xaalis maman. lan. yow kii nga koy xas nga bëgg mu fayal xamuloo sa bopp ñun amul ñu fay amul ñu lekk. kii de jaajëf bi waxee wu noonu de day wax ne dëkkandoo mooy moom moo ko lebloo woon bor loolu ca kanam guddi ji man maa la yónni ma yaa mun a fenn booy wax di dee nag booy wax koy wax rek gaañu la di dee ba yeboo mu gaañu ba yeboo mu dees du ma buy jox ma sama xaas yow maman yow sama xaas jox ma ko laa mais réew